nga jóg rus bi laalante foog yu is ñàkk a gëm sa bopp weesuwul nga dem Grand Yoff naan foog yu géeje yaa ma gën a tey nii waa Grand Yoff xam nañ ne fee ne nga bës laam mooy bës bu kam wax ma sa fàtteem fii la ngaa ko génne son king baaba nga dem toog bi rap ci musique bi dul nan boy bi lay wàccee de rapport na yi géeje waay nga kas sa nay dem wàccee nay de rapport bi may bi lay yëkkati de rapport bi si kaw ak ca géeje waay dem dëpp loxo yi si kaw bu fekkee da nga pare pour raak man dama pare pour dee bu fekkee da nga pare pour raak man dama pare pour ray sana set a fuck nigga ah bitch yi ngeen doon wala boog is motherfucker motherfucker bitch bi nga doon nigga gëmoo ndayam fi nga dëkk wala boog ñàkk ngay gëm si bopp moo tax ngay dem topp nday fee ay bitch fee quand même dañu nday xeex quoi et puis xool yow laay nday waxal ak ñi la wër foog nday seen concert bi ngeen di teg chaque année su ma rusul woon géejawaay rek dinaa leen wax ko teel waay shut up fuck